tàmbali conférence de presse bi nag di jox pap kàddu gi euh, dañuy gërëm suñu grand frère boo xamante ni professionnel la ci musique Sénégal tey calendrier wu metti woon trop mais malgré tout à notre grande surprise sax la ñuy wax bi ñu ñëwee léegi ñu fekk ko fi mu jiitu fi sax pap muy grand gise pen mi toog pap wax balaa moo jël kàddu ñu gërëm ko rafet lu teewaayam parce que nii la àndeek vraiment acteurs yi nga xam ne ñëpp ñu ngi nekk ci musique bi ak ci culture bi Sénégal di leen ah. accompagner donc sans plus tarder comme dañoo accusé tuuti retard je vais introduire monsieur Pape Diouf le leader de la génération consciente mu waxtaan ak la presse nationale ak la presse internationale wax adduna yëpp dégg ko mu expliquer leen lan moo waral ndaje bi ak lan moo waral conférence de presse bi Pape donc vous avez la parole ok waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ginnaaw bi ma sant yàlla julli ci yonent bi sant suñu ay waajur di gërëm suma sëriñ sëriñ Cheikh Anta Mbacke borom Daaru Salaam mu yàgg fi lool ànd ak wér ak euh, introspection dama xalaat maanaam toog ci sama rukkus man a kan maanaam toog ci sama rukus mën a kan def sama jataayu bopp posé wu la question que ni sunu kilifa yi sunu aîné yi fi ñu yóbbu la musique sénégalaise porté ko sur le plan international loolu warul daanu loolu dafa war a gën a jëm kanam mais warul am tànk ginnaaw et loolu ma gis ni ko lu bari tey. ci génération bi ma bokk loolu tegu na ci sama kaw mbag looloo waral ma war ci def liggéey bu am solo. ça date de 19 ans loolu du colla bu ndaw loolu du ànd bu ndaw donc bi ma ko waree def aussi def naa ko ci defin bu rafet ndax kër googu bi ma fay dugg dama fa dugg ci bunt bu rëy. bi ma fa waree dem aussi bi mu jotee pour ma dem xooli leneen def naa ko jaaraat ci bunt bu rëy boobu ma duggee woon dem naa seeti suma mag Ngone Ndour suma frère Ibrahima Ndour ñu waxtaan en privé waxtaan ba déggoo ba lépp rafet ñu ñaanal ma souhaité ma bonne chance man aussi ma ñaanal leen souhaité leen bonne chance ndax nag li waral loolu mooy la maturité jot na la maturité mature nañu et jot na ñu nit ñu dëgëral sunuy tànk liggéey te nag liggéey rek tax du leneen ci biir loolu aussi euh, bi ñu defee loolu ci jàmm ak salaam yàlla dogal na ñu xoolaat sunu yoon defaraat suñu taxawaay ngir mën a am tànk yu dëgër ci biir loolu j'ai fait des nominations yu bees ci suma staff muy suma management ndax teg nañu benn société entreprise bu mag boîte bu tudd PDG PDG su ngeen ko déggee mooy Pape Diouf Group Eh, ki nekk ci bopp bi mooy sama maxtar Makhtar Diop Soubatel ma am nag ak moom ay relation yu yàgg ça de 15 ans bu ko matul li koy manqué fukki at ak juróom bariwul Bakane Seck mii toog ku ne Bakane ne Pape Diouf ndax fi nu jaar jaratul sax ma koy tudd ndax wax naa ko fu nekk ci àdduna bi sénégalais yépp xam nañ ko donc baakan mi moo ma présenté woon Maxtaar maxtar nekk suma rak déggal ma bëgg ma tamit di ma suivre xër ci sama liggéey ba yàlla dogal tey liggéeyatuñu woon waaye yàlla def na ci ndox mu sedd ba tey booloo nanu àndandoo di liggéey trois ans yi mu fi nekkul aussi Souleymane Diop mi toog nga xam ne sama diggante ak moom dépassé na musique ak baakan mi nekk suma wet nga xam ne tey mën naa ne lu di njaaga mooy njaag ndax sama carrière ci moom la démarré waatee moo ma présenté Jimi mbay moo ma dugaloon jóolóoli jamono yi Prince Art amul donc ànd bi yàgg loolu boobu ba tey ñuy àndandoo di cheminer di jóg di daanu Souleymane assuré intérim ji ñu dem partout dans le monde mu takk ndiggam gis proposition bu ne mu toog jàpp ci liggéey bi ba yàlla dogal tey Papis war a intégré groupe bi mu def ci nag ay jéego yu am solo baakan aussi def ci ay jéego yu am solo kon je pense que ni li ñu war a wax yépp tey bari na ndax occasion la mais di leen wax ni nag rek en grosso modo staff bi yaatu na waaye ñëpp mënuñu leen dévoiler ndax li am solo rek mooy liggéey te yàlla rek tax Papis aussi ñu koy remercier ndax fekkoon nañ ko ci ay xat-xat mais dafa bàyyi lépp ñëw àndandoo ak ñun moom it muy sunu mag ñu jël sunu liggéey ñun ñëpp ñu booloo dénkaat ko sunu liggéey ngir nag sunu liggéey mën a jëm ci kanam ndax fi mu ñu fi ñu toll nii li ñu ñor rek mooy la musique sénégalaise mhm. <laughs> euh, maa ngi jégalu ah Souleymane moo nëbb Mamaane ci am quoi <laughs> waaw euh, Mamaane mi. ku ne Pape Diouf rek ne Mamané loolu moom c'est à vie benn anecdote laay mës a nettali dañu mës a jote boobu sama papa yàlla na ko yàlla xare aljana ku ne xam na ne ànd moom chaque jour dañuy day am jote moo xuloog mamaane Mamané jiituma suñu kër jaxase ma ak bi jaxase ma ak paa bi léegi bi ma ñëwee ci kër ga manit ma expliqué sama ndax lu ñu ma saan liggéey rek dama koy defal compte rendu bi ma ñëwee sama papa ngi toog di déglu ma defal ko compte rendu ba mu des point mamaane mu ne ma kon pare nga man ne ko waa pare naa kay papa mu ne ma waa sa waa ji nag moom ma ne ko kokka mu ne ma mamaane dama dégg ne da ngeen am ay problème man ne ko non mais papa vraiment bëgguma ci sax woon ñëw mais mamaane xam naa ne daal dinañ jote mu ne ma ah man kay dégg naa ne jote ngeen ndax maman ñëw na fii ma ne ko non papa daal damay xalaat maman daal je préfère ñu arrêté ànd bi man ak moom ko parce que orchestre bi il faut mu am kenn kuy jiitu mais ñëpp ñëw jiitu mais maman loo wax mu andi problème sam papa ne ma yow sa orchestre bi tas moo gën a gaaw maman jóge ci groupe bi maman ne fii la ñëw na fii léegi li ngeen jote yëpp wax na ko bëgguma sax déglu li ngeen jote mais dama bëgg nga xam ne ni nga nekkee doom ci kër gi noonu la mamaane nekkee doom ci kër gi yow nga jóge génération consciente moo gën a gaaw mamaane jóge ci groupe boobu kon sama diggante ak mamaane mii tàkkusaan la ak tisbaar waxtu doxu ci jërë ngeen jëf merci. kenn ñu paree loolu comme album bi album la boo xam ne dafa ubbeeku vers àdduna. waaw Pape aussi deux trois ans yi mu nekk di liggéey. fansam yi soxlawaat nañ rythme bi nga xam ni tamit ñun ñoo ko moom muy mbalax pur et bi moo tax le 15 décembre insha allahu rabbi bii ñu jëm Pape Diouf dana def sortie dana génne album national boo xam ni album mbalax la boo xam ne da koy jox sénégalais yi cadeau de fin d'année boo xamante ni Pape Diouf moo koy génne bu ñu paree album international boobu euh, album national bi génn le 16 le 15 décembre début janvier le album international bi di génn en début janvier début janvier ci ngeen di jot intégralité wu album international bi nous avons signé 76 dates avec Universal Music loolu mooy li génn gum ci tournée nationale tournée internationale bi nga xam ni dañ koy def ak label bi nga xamante ni Pape Diouf signé na ak ñoom muy Universal Music 76 dates yoo xam ni ci biir année deux mille vingt bi Pape Diouf dana def tournée internationale ak équipe bu Universal bi ñu wër àdduna présenter àdduna album bi nga xam ni Pape Diouf def na ko ak Universal c'est soixante seize dates pour l'instant fii ñu tollagu waaw le 11 janvier Pape Diouf day def grand bégué bu mag fi nga xamante ni mooy Maroc communauté sénégalaise bi ak africaine diaspora bi nekk Maroc Pape Diouf daf leen di suñu collaboration luy law lay doon di remercier waa Universal Music yi nga xam ni siège bi mi ngi nekk Côte d'Ivoire muy groupe Vivendi muy Canal Plus muy yeneen ak yeneen yoo xam ni presse bi yéen a ma ko gën a xam ñu ngi ñuy suivre un peu partout dans le monde ñu leen di remercier. demee nag li tax ñu changé lieu bi nga xamante ni defee nañ fa conférence de presse bi woo leen fii presse bi fii. dafa am soirée yu fi Pape Diouf di démarrer mooy Dream suba lay démarrer insha allahu rabbi fii ci kaw suba lañ fiy démarrer ay soirée yoo xam ni dañ koy may fan su Pape Diouf yi nga xamante ni doon nañ jàmbat la présence de Pape Diouf je pense que loolu mooy liñ leen indiloon di ubbi question yi nag journalistes yi di leen wax lépp loo leen bëgg a laaj Pape Diouf ak la génération consciente ñi ngi fii taxaw pour tontu seeni question pour leeral leen je pense que mën nañ ubbi liste Sala waaw Sala donc euh, ñu jox suñu grand frère Sala Bigué mu sànni ci ñaari baat nag ñu jox euh, presse bi mu posé seeni question te Pape Diouf dafa am fu mu tàmbalee ci biir wax ji ma tàmm ma ma jàpp ci ñett ànd góor ànd nawlante ànd bokk métti muy ànd góor bi ànd nawlante ànd bokk nañ ci li tax ma ne ànd gor ak ànd nawlante nag ay gor mën nañoo ànd te du nawlante mais ay gor bu ñu dee ànd ba pare nawlante seen ànd dafay neex seen ànd dafay yomb métier bi ngeen bokk nag da ngeen a bokk loo xam ne mënu leen koo séddoo Pape Diouf mooy nekk ci kanam waaye Pape taxawoon ci kanam di wax rek te dara accompagné wu ko bu yàggee dina topp. ñi koy seetaan tam bu yàggee dinañu xaaj di dem waaye bu taxawee ci kanam di wax am lu nekk ci ginnaaw way neexul de way neexul way yaa neex. waaw waaw. way yaa ñoo neex. ala dégg way yaa neex way yaa. way neexul Pape way yaa neex. ah waaw ok mooy ki yore batterie ki yore sabar ki yore guitare ki yore clavier ñu boole te mooy ne loolu yëpp lu dee rek la lu dee rek la dara dara amu ci bakkan benn nit moo ci yor bakkan di ko doxal ba ni mën a jox nit sonorité boo xam ne doomu aadama bi da ciy bànneex kon kenn mënul fay artiste artiste nag li mu am mooy aar te Pape Diouf di ma ko naan li nga am lépp da nga jox sénégalais yi bien vrai que c'est at bari mais am ni jox nga ko sénégalais yi muy sa baat muy sa xam-xam sa expérience ak sa jot léegi nag sénégalais yi ñoom ñoo war a def retour bi delloo ko monnaie monnaie bi ñu lay delloo lan la war a doon jàppale jàppale bi mooy lan boo génnee album ñu jënd boo déggee soirée ñu ñëw ku xam ni mën nga cee yokk sa benn xeer nga teg ko ci pour génération consciente bi jëm kanam nga def boo diwuñu kenn dàquñu kenn xataluñu kenn na ñëpp ñëw. équipe lañ soxla équipe bi nag union fait la force mais ci biir ànd nawlante bi Souleymane Diop mention spéciale njiit dafa neex Souleymane ñu def ko chef d'orchestre Papis Konaté ñëw ndax Papis moo nekkoon chef d'orchestre génération concert diggante Pape Diouf ak Papis Konaté ak Souleymane suba la angoon ak Bakar maa ngi ñëw ci Bakar Pape Pape Papis ci ñoom laay nekk benn journée la maanaam suba la encore Bakar li tax ma mujjee ci moom boo nee Bakar Seck ni Pape Diouf ku yëg Pape Diouf boo gisee Bakar jàpp dama ni ñoom ñaar junni lañu ak cinq mille du dundee mu jëfe ba léegi mel ni am nag xarit boo xam di sunu rek di Badara Gaye boo ko déggee muy wax da ngay xam ne macha allah kii li muy wax na buur géwél xale boo xam ne sonn na ci Pape waaye nag mag lu ko déranger bët mën na xool lu mu bëggul xool làmmiñ mën na tudd lu mu bëggul loxo mën na laal lu bëgg la mais tànk fu mu dem borom na nekk. di sa benn ñu ngi lay nuyu. ndeysaan macha allah. ku baax. macha allah man dafa am fee yu may jàpp man ku jàpp Pape Diouf ma jàpp lu ko Pape Diouf ma bala. ndax li ma def la. man dépassé naa ba dépassé naa dem boîte de nuit mais day sama doom di sama rakk di sama xarit. Zoro Mbaye ma jaaga bii man mooy kon man Zoro man may sama kilifa man maay ñu bokk ñu bu ñu dajee danaa ma saala bu ma wax yow te lii may wax moo ko dàq ndax buuru jëwal la mag la artiste la xam ne li may def waaye nag nit koo gis dafa am loo koy jàpp moo tax daal fi may daal suma kat comme wax fi nga koy jëlee du fa jeex kon koy sotti lu bees loo ci day dañuy ñaan yàlla lu bees lii ñuy tabax ak suñu doom jii ma tàggu nga xam ne bu ñu dellu si woon démb day falu ndax la jooree maam la buur rek la jënd bi jikko ji waaye li mu si jikko si juddoon dafa rafet moo tax ni mu toll rek lay dikkal staf bi yëpp di ñaan daal lii ñu nas tey yàlla yàlla suñu borom àggale projet yi ni ko Badara Gadiaga waxee yàlla nag ku mu puus ma def yàlla rek fi nekk Pape yàlla mooy joxe ndékki mooy joxe añ mooy joxe njoganal mooy joxe rek te du añ si durée du nekk te doo ko dégg ci mel ni kenn ku la def loxo bon nuyu. une minute balaa ngeen di poser question ñu jox grand bi s'appelle sénégalaise après ñu jox Papis Konaté rek ñu jox leen question yi grand Sala bi ñu ngi lay sant di la gërëm grand Soro Mbaye nii ngeen ànde woon ak ñun Bercy ba ba ñuy yéeg ci kaw seen bi kontaan nañ ci yéen bësal bouton yamal foofu euh, li may wax moom mooy parce que ak kenn bopp yi parce que pour am parce que que nekk dans un lieu pendant dix-neuf ans dem ba bokk xam su jëlee ses responsabilités génn dina am lu bari yoo xam ne dina la ko manqué. dëgg la loolu nag motivation yi ci boppam moom lay mën a ñëw mën a engagé da nga xamante ne moom mooy sa njëriñ la. que musique aujourd'hui il faut avoir beaucoup yi nekk ci biir musique bari téeméer yi nekk ci biir musique beneen volet communication yi nga xamante ni moom la teg musiciens yi bari na ba nga xamante ni il faut être vraiment courageux et aimer ce qu'on fait. aimer ce qu'on fait man su koy témoigner parce que Pape Diouf je l'ai connu à ñaari tali booba mu ngi doon jàng trombone yi nekk un jeune ambitieux dëkk nag samay samay samay mbokk parce que. Mamadou Faye l'ancien professionnel de Bastia man ak yaay ñoo bokk ndey bàyyi bu bokkoon bañ ak ñoom Aïcha Mbaye et cetera. dinaa fi ñu demoon bi mu nekkee léegi ba jamono ba léegi ba retiré wu il a vécu des moments très durs très difficiles mais dignité ngor ak jom sans pour autant que muy tendre la main moom moo ko eggalu fi may gis tey danaan jóge ñaari tëdd doxantu ba sama bëgg boobu mu ngi nekkoon koy cosaan toog foofu di waxtaan delloo ma ne ko dina baax de et ce dina baax la je le voyais pourquoi parce que en dehors de l'homme mm. il avait le talent dans la musique nag nga xamante ne moom la mooy il faut que les la presse surtout bénéficier wu ci les actes yi nga xamante ne moom la artistes yi def pour mën di koy relayer au lieu de se noyer dans des polémiques ou dans des discussions je crois que ça ne nous apporte rien le Mali est là la Guinée est là ñoo leen ëpp ay musiciens ñoo leen ëpp ay talent mais pourquoi ñuy mën a def le tour du monde alors que nous nous avons ce blocage là c'est parce que malgré l'effort des artistes il n'y a pas assez de relais il n'y a pas assez d'accompagnement pour pouvoir permettre aux gens li nga xamante ni moom lañ notre musique est très riche elle est très riche et nous avons des garçons de valeur et ces garçons de valeur il faut s'appeler partout il peut s'appeler Wally Seck il peut s'appeler autrement mais ñun ñëpp nous sommes mus par l'intérêt du Sénégal l'intérêt du Sénégal c'est accompagner ces jeunes parce que on peut pas les aider li ñuy am am na ngoo bàyyi xam nga lii aujourd'hui man je suis surpris et séduit de ce de tout ce travail a été de tout ça mais sa générosité ça je peux en témoigner c'est l'un des rares yoo xamante ni weer dina ne mun ma grand fois rek ñoo def donc jàppale jënd ko café ce qui est extrêmement rare ak mi Sénégal extrêmement rare te man xam naa li ma je ne sens pas la mer je n'ai pas besoin je suis dans la famille de musiciens et cetera mais ce qu'il fait lui son, son approche ak nit sa loyauté sa générosité ak surtout na koo mën a. waaw sama góor la. <laughs> salaamaaleykum. waaw maa ngi nuyu ñëpp euh, vraiment di remercier waa maa ngi maa ngi nuyu ñëpp ah. di remercier ci départ bi bien sûr Pape bi nga xam ne moom mooy le de la génération consciente euh, di remercier aussi Makhou Diop euh, ci confiance bi nga xam ne tey am na ko ci man ba insisté na depuis trois ans sonnal ak sama seex bi nga xam ne Souleymane Diop wax dëgg yàlla matin et soir muy fan seeg muy tout le monde ay kilifa vraiment def euh, pour que ak Pape ak génération consciente mën a àndaat ci jàmm ak salaam waaw ma koy rafetlu nag di leen jaajëfal ñoom ñëpp ak groupe bi ñëpp bon sama présence fii nag c'est juste pour wax leen nii rek je suis là en tant directeur artistique te man nag samay wax bëriwul man yaakaar naa ni man ci liggéey bi daal nan ma gën a xamee waaw sama présence fii nag mooy li may wax rek li ñu ma sant rek moom laay def Pape Diouf c'est le chanteur moi je directeur artistique mais mënumaa dem sans samay gars yi nekk ci kaw taxul ma doon leader man je je suis que directeur artistique mais je ne peux pas faire un travail sans toutes ces personnes qui sont derrière. waaw. macha allah man je suis là pour diriger. mais qu'on me laisse travailler aussi. parce que c' est important li may wax ah. parce que man dama di nitu challenge. waaw li ma wax Pape Diouf sama sama dellu si waat fii ci orchestre bi. dama bëgg ñëpp comprendre ni dama fi dellu si waat pour yëkkati waat flambeau bi fa mu gën a soree. waaw loolu moom mooy sama sama sama sama mentalité quoi man mentalité battant laa yor donc dama bëgg tey à partir d'aujourd'hui ñu xam ni orchestre bi dafa jóg pour liggéey wax ju bëri nag dootuñu fi nekk ci ci ay détails waaw ma wax naa ko Pape Diouf man si kaw terrain Pape Diouf duma gis ni Pape Diouf la man damay gis ni rek chanteur bi la si kaw terrain ñii ñëpp xam na ma dama dama dama dama dama xaw a tànk ba kii sax day kaas ba xam nga waay la <laughs> les partis waxal parti square bi ma yuux si kaw bon euh, yëpp ci liggéey la ah, franchement pour euh, pour que ñu wax ni bon je suis venu wax naa ko Pape Diouf pour qu'on tous positifs mm-hmm. positif bu ñu nee positif nag mooy képp ku jege Pape Diouf aussi nga war positif mm-hmm. man je suis positif et tout le monde le groupe positif mm-hmm. on est pour travailler te bu ñu paree di ngeen xam ni pare nañu la fi nekkoon dañu bëgg dem lu gën a kawe li te c'est du tout jàppewuma ko artiste sénégalais rek mais dama ko jàppee euh, africain l'africain laa ko jàppe et c'est un excellent chanteur tey c'est un tey moo war a nekk ci ginnaawam jouer ak moom nekk ci ginnaawam ak tout le groupe mhm. voilà donc loolu laa bëggoon nit yi may leen encore un an di ngeen gis ni vraiment dig nañ leen ni dina dem au de li ngeen li ngeen ñu xaar. donc li si am importance de travailler et de moins parler. Mhm. ndeysaan alhamdulilah rabbil alamin mm. xanaa dinañ koy delloo suñu borom te àdduna nag soo ci nekkee nii rek lay demee ndax liggéey rek am solo ndax ñun ay doomu aadama lañ ay jullit lañ te damay faral di wax ne dama man doom damay delloo sama xol sama xel sama tam ci suñu borom ndax damay dee te koy bu ma dee kenn du ma ko fekk du sama yaay du sama baay du sama sëriñ du kenn sama jëf rek moo ma fekk yooyu moom xam na ko man xam naa ko yàlla xam na ko dernière aussi ku mel ni suñu mag ñoom Ibrahima Ibrahima Thiam ñu jëwin ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne que c'est c'est la famille liggéey ñu comme maanaam dañoo yor leader boo xam ne kenn ku ci nekk da ngay ñëw rek naan lii la ñun famille la ñuy demee dañoo dañ parce que nit d'abord foofu pour nga def lu neex nit ñi il faut xol yi rafet il faut ngeen bokk ndey ak baay dèjà looloo tax lépp bépp album bu mu doon def moom Pape Diouf da lay wóor ne ni que su génnee rek dafay am man nag du ma hypocrite man ma wax lu ma gëm lépp lu ma wax rek dama ko gëm te may ñaan bi yoon yi nga tàmbali man benn jël rek laa muy Serigne Saliou man Balla Mbacké suma wasila yàlla soo yow lu leer ci barki Seydina Mouhamed ci barki Seydina merci jamono boobu RTS sax moo am mu yore guitare ndeysaan yore harmonica di way taaje boobu ma ko daan seetaan tous les week ba mu gi mu jaar super jamono liggéey fa liggéey bu mucc ay jóge fa nag ci ay ambition gën a bëgg a élargir liggéeyam ber daaraam ba tey jii sunu jonn yàllay tey ma jël aussi exemple ci sama mag sama xarit Youssouf deux star band kase étoile de Dakar super étoile macha allah ba tey nekk un ministre de la république loolu ambition moo ko may mais teewul nag ñam ko sosandoon tey su ma demee dëkk bu mel ni Finlande Helsinki daaw jéeg y'a deux ans festival bu mag boobu waa xasawaal yi defoon def ma ma nekkoon parrain bi dama dem ñu joué festival bi ba pare guddi googu ndeysaan man ak suma papa Rane Diallo nelawuñu ñu fanaanee woy mu may nettali seen jaar-jaar ak Super Étoile naan ma su ma lay gis ni nga bëggee liggéey parce que dama dama ko doon woyloo ba njaajaar njaay bi may woyaat ne ci sama répertoire style boobu ci raan jàll laa ko gisee donc mu may xamal ni ma Youssou ni lañ daan nekkee bi ñu jógee Étoile de Dakar war a beru nekk Super Étoile donc foofu Prince Art c'est famille sama kër la tey jii buñ ma soxlaa lu ma jàpp dama koy bàyyi wuy ci leen comme ni ko Bakar waxee sànq dafa wax dafa wax wax bu am solo que ni ñooñu dañ ma apporter lu bari man it ma am lu ma leen apporter mu nekk famille waaye ki la tingoom di la tette di la jox biberon ngay naan jar na nag léeg-léeg te ma def ko man ci sama répertoire Baba Maal woyandoon nañu waaye li ñu woye génnagul baakan mi moom a yóbbu këram mu dugal ma ci joom ne ma pap déglul morso bi defal li ci kon je pense que ni tey suñu tenoor yooyu yëpp woyandoon naa ak ñoom e loolu nag dama koy sante yàlla bu baax ndax ñooñu c'est des c'est des superstars kon tey bu ñu wàccee seen bopp am modeste bu toll noonu am ci yow kóolute wayandoo ak yow loolu sant yàlla la bon par rapport ak Universal aussi euh, sant yàlla du xëccoo non ndax man lii dama dama naan am na loo xam ne ñaanu waajur la ndax label yu noonu jafe na nga liggéey un produit fini ñu accepté ko nangu ko jënd ndax bi ñuy door ñaari projet la woon Maxtaar dafa dem France pour outil partenaire boo xamante ni dañuy ubbeeku sur le plan international bi mu demee mu daje ak benn label bu ñuy wax Caprod Caprod présenter ñu beneen label bu ñuy wax Aztec ñu ñëw France toog ak ñoom waxtaan ak ñoom ñu amoon ñaari projet bi ci njëkk mooy album international beneen bi ci topp mooy organiser pour def Bercy ñoom ñu ne mën nañu def production bi mais Bercy wóoluwul Pape ndax nee nañ du dugal seen xaalis perte ndax bi ñu xaymaa Bercy bi budget bu énorme donc ñun ci ndimbalu yàlla ñu ne leen bu leen neexee sax album bi ñuy def bu leen nu fay nan leen ko def win win andi leen arrangeur yi ñun lépp luy charge mën nañ ko defal suñu bopp parce que nit booy boo nekkee ci liggéey gëm sa bopp gëm liggéey bi ngay def da nga war a gëm ni bu ci yàlla àndee dafa war a dox ndax loolu il faut que sénégalais yi xam ko que ni léegi léeg nga génne album mu neex or que daj nga ci lu metti te nag dama gëm ni balaa ngaa jariñu faw nga ñàkk donc durant ces trois dernières années yooyu tout ce qui dépense ci album bi tout ce qui est hôtel tout yeneen dépense yi ñun ñoo ko jëloon en charge parce que gëm nañu suñu bopp yàlla defal mu sutura ñu dugg ci projet album bi Bercy ñoom ñu ne duñu ñu jël risque di financer Bercy bi donc man ak suma rak Matar ak suma mag Pape Bokar Diouf ñun ñoo toog waxtaan ne nan leen dem gëm yàlla waaye nag wéetuñu ci ndax ñu bari dañ ci jàpp am na ñu ci jàpp sax te bëgguñu ñu tudd seen tur am ñu ci jàppit ndax gis nañ ni que Sénégal moo xew la mais du Pape Diouf ndax ñun Sénégal lañ demoon représenté ndax loolu bu échegoon du Pape Diouf moo échec ndax Pape dafa dem rek uti dafa dem rek sabablu Sénégal la demoon représenté loolu jiital naa ci presse bi ndax promotion boobu presse bi liggéey nañ ci liggéey bu am solo suma xarit yi jàpp nañ ci musiciens yi may àndal ànd nañoo man ci avanture boo xamante ni aventure bu metti la woon mais nag yàlla defal nañ ci sutura ba loolu moo gën a tax bi ñu liggéey suñu album mu nekk produit fi nii am label yu bari yu ko bëggoon Believe Sony ak ñeneen ak ñeneen ak Trace TV ak ñeneen ak ñeneen mais ñun suñu maanaam bëgg-bëgg universal la woon parce que tey boo xoolee universal booy lim label yi gën a mag ci àdduna bi c'est le number one donc ñoom ci seen jëmi bopp bi ñu dégloo album bi yeggalewuñ ko ñu ne macha allah et que d'habitude bu ñu daan produire artiste ñoo la doon jox ñoo la jox studio boole la ak ay arrangeur boole la ak ay big maker gérer direction artistique bi ci ñoom ni ko bëggee ndax ñoom noonu lañuy liggéey mais yàlla dogal na ñun dañu liggéey ba pare jox leen bande bi ñu déglu ko bi ñu ko dégloo ñu ne ah beneen voix wu Afrique juddu na gis nañ beneen. beneen vision bu bees ndax soxla nañu lool kon loolu defe naa ni du ndamu Pape Diouf mais ndamu Sénégal la ndamu Afrique la donc li Cheikh moo moomu dugal Universal ma signé ak ñoom nag un contrat de trois ans di ñaan yàlla ci kattanam album bi nga xamante ni wóolu nañ ma ba signé ma yàlla defal nu ci ndam ba ñoom buñ ci am déception disque d'or disque diamant disque platine kuy liggéey rek loolu ngay ñaan yàlla waaye nag ñun loolu taxuñu jóg liggéey moo ñu tax a jóg avancement ba lu ñu ci fekk rek ñu xam ne suñu borom moom moo ñu jaarale ci yoon wi jërëjëf defal leen loolu pour ngeen kontaan du dëgg donc li moo waral projet disque bi dem ci yeneen style wane sama talent dem ci yeneen style yi nga xamante ni dafa ànd ak jamono ndax lool loolu dafa ànd ak jamono def ko pour jox ko melomaan yi jox ko le public sénégalais loolu rek la euh, waaye nag àdduna bi fi mu toll comme ni technologie bi avancé noonu la liberté avancé ñëpp am liberté léegi c'est la mondialisation ba tax na du am kenn ku lay tënk au contraire sax au contraire ndax nag am nañu quelque fan ci liggéey bi donc kooku aussi dama lay rassurer euh, beneen question bi la ci la. waaw sama base waaw mais mbalax laa nam di doomu géwél pire su ma nelawoon ba 6 heures du matin nga yeema man ni ñaaloo gay naa ko daanjël jël bi ganta maali gànna paaloo maa jigéen biram farba sàmba saane sàppenda mbujjaleen way na tuddul woon way nde te ku way lañ ko daan woowee lool c'est dans mes dama loolu sama sama deret la loolu dama ko nàmp ba pare nag jàng ko Lemzo Diamono te ba léegi maa ngi ci loolu mooy sama base looloo waral ñu ne album bi disque bi day génn waaye nag faaw ñu def mbalax pur et dur album boobu nag mbalax bi ñu war a def sur le plan national moo war a génn le 15 décembre pour ma jox ko fan si seen cadeau fin d'année donc côté boobu aussi rassurez-vous mon frère gëj a dégg bi aussi boo nekkee ci waar di liggéey ca pareegoo ñun ñun nit ku ñuul dañoo baaxoo di nëbbatu balaa ngay jox dara kon ni nga ko waxee seddal ba mu sedd jox askan wi ñu war a naan ci anam bu neex bu sell lëlul dëxëñul toogal ci sa ruq a Akane liggéey ba pare génne nag jox ko askan wi ku ñëpp xam paa kon yaa ko wax <laughs> liggéey bi ngeen di def yàlla na ko sunu borom barkeel ndax ñun ñëpp ñoo bokk bëgg-bëgg muy le Sénégal aille de l'avant maa ngi leen di remercier bu baax a baax a baax maa ngi leen a way. ndeysaan yow doo moroomu waykat barki Seydina Mouhamad. amul lu may ragal yow yaa dàqa way ci àddina yow koo ne moo la dàqa way rek respect bi nga ko jox la. mais yow say octave ak sa baat yow kenn yoru ko ci àddina yow da ngaa mën a way fii da am respect rek bëgg Sénégalais yi moo tax nga leen di mosal mais yow xoolal. maa toog nga toog États-Unis ñoo la soxlaa ak Europe ak Asie Océanie Belgique ak fépp yow naaraan nga. Eh, yow ñëpp jox respect yow. yow ñëpp a lay jox respect. wala ngay moromu yow gore baax nga doo def dara ngir ngistal koy may danga koy nëb yow Pape Diouf li ngay defal. barki Seydina Mohamed yow li ngay defal li li ngay defal yëgu ko barki Seydina Mohamed buñ ko fii àdduna tukki kii du def ngir dara du def ngir kenn gis ko maa leen koy wax ngeen di dégg barki Seexul Xadim laa la wax Serigne Touba rek laa yaakaar kii li muy def te kenn ko buñ ko waxoon tukki barki yaa rasulullahi du def dara pour kenn gis ko donc di remercier suñu voilà le leader de la génération sur Dakar Buzz Pape maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi fay waa Dakar Buzz yëpp ñi koy seetaan partout dans le monde maa ngi leen di remercier maa ngi leen di fay bu baax. léegi lu ma la bëgg a njëkk a laaj rek mooy sa li nga quitté Prince Art dégg nañ la jàmm ak salaam la dara amul seen diggante mais sa nga quitté Prince Art du du nekkul loo xam ne nii dana yàq dara si sa carrière musicale wala euh, nekkul risque boo xam ne nii bokk na doon dana am si sa carrière musicale. waaw jërëjëf maa ngi remercier waa Dakar Buzz di nuyu ñi leen di seetaan partout dans le monde euh, bon je pense que nii tey su ma quitté Prince Art amul amul risque. parce que pour man liggéey rek moo am solo te dama jóg foofu pour gën a gën a gën a bëgg a avancer te avancement liggéey rek moo koy joxe donc euh, jóge bi ma fa jóge aussi jóge jàmm la ak salaam ndax ñoo nekkal 19 ans bientôt 20 ans dañu dem ba dépasser relation professionnelle mais relation familiale dafa dugg donc te fu relation familiale dugg kenn munu ko yàq dafa fekk ni rek nit ku nekk aussi am nga sa destin te nit ku nekk aussi sama kër baay sa kër baay neex na lool waaye boo sañoon nag yow it samp kër ba ëllëg say doom bu ñu juddoo ñoom it ne ah ñun kat am nañ suñu kër baay waaye nag waruñoo noosoo suñu kër baay war nañu ni samp suñu kër donc loolu rek moo tax mais du lenn loo xamante ni coow la wala problème comme ni ko nit ñi di séentoo et que loolu sax moo tax pour ma fri boppu sénégalais yi parce que du ma ne samay fans mais je dirais plutôt le Sénégal donc euh, musique sénégalaise la ñu bëgg a bëgg mu gën a jëm ca kanam ndax am nañ ci responsabilité ndax suñu génération bi mujj muy suñu mag yi ak suñu grand yi dañ ci def liggéey bu am solo kon ñun aussi suñu génération am nañ suñu waar am nañ ci suñu wàll te suñu wàll mooy tee ko ba puso boobu bañ a réer euh, ñuy wax si album bi album bi wax nga ne euh, waa kii seen waa sa waa équipe duñu ko tëgg ay tubaab ñoo koy tëgg waa album bi pare na donc euh, waa génération consciente tëgguñu ko te que préciser que ni album bi presque duré na trois ans donc ay tubaab ñoo ko def parce que dama demoon pour nag uti yeneen xam-xam ndax à chaque fois rek dañ ma doon laaj Pape jouf kañ ngay dugg ci international bi kañ ngay def leneen donc euh, ma ne leen bu jotee rek dina yomb mbalax la ñu am te mbay ci sa weewu tànk donc yàlla dogal na nag Sénégal ci mbalax amatul lu may prouver donc depuis quatre-vingt-quinze mbalax laay def kon jot na nag tey ma dugg sur le plan international ak ni ma fa war a duggee ak li ma war a génnee donc loolu moo waral trois dernières années yëpp donc ñi ma daan produire Sénégal mu wàññeeku samay proche samay xarit samay mbokk samay fan samay am di jàmm dem ba seetlu loolu ndax saa su rek. maa ngi doon voyage diggante France ak Amérique ngir dëkk ma liggéey boobu yàlla dogal na liggéey boobu tey pare na donc pare naa nag pour jox ko melomaan yi et bu génnee dinañ ci kontaan lool incha allah. lan la ñuy mën a xaarandi si album boobu dina am featuring mbalax kese lay doon nan lay dem. non du mbalax donc am na R&B am na acoustique am na afro pop am na afro trap xam nga am na aussi euh, style yu bari yu différent donc euh, je pense que ni bu ko Sénégalais yi dégloo dinañu découvrir beneen Pape Diouf dinañ découvrir yeneen sonorité beneen couleur beneen voix parce que après la yëg ni am na lu bari lu doon nelaw ci man loo xam ne man personnellement mënu ma ko woon génne mais loolu jot na génn bien que am na lu des mais am na lu génn te loolu génn bu ko bu ko Sénégalais yi dégloo dinañ xam ne am na lu génn si loolu lay desandi sax comme que am na lu doon nelaw si yow loo xam ne xamoo ko woon sax lan lañ mën a xaarandi lu spécial si album bi. yaa y a des def nañu ay featuring yu bari par exemple gis nañ fi euh, waa Kassav ko mel ni Kassav bi ñu nekkee xale man bokkoon naa ci ñi Kassav daan bercé bu ñu mësaan ñëw Sénégal fu ma mën a jaar pour am passe dem seetaani leen dama ko daan def donc Jacob Devarieux avec sa guitare magique dafa may yàgg a bercé comme ni mu daan bercé samay morom que dama yàgg a rêvé dama yàgg a tey ni may rêvé woyandoog Baaba Maal wala Youssou Ndour wala Ismaïla Lo dama maanaam def ak moom dara donc avec sa voix vraiment magique donc ku mel ni moom def nañu featuring ku mel ni tey Fally Ipupa c'est un grand monsieur donc euh, vraiment. Euh, ku ne xam na ko sur le plan international donc euh, muy sama doom ndey moom tamit jàpp ci projet bi def nañu featuring man ak moom bu tudd Elle moi am na benn rapport bu mag bu ñuy wax Esprit Noir donc sénégalais yi xam nañ ko bu baax c'est un bu basé wu en France euh, bu am bu am nag talent wax dëgg yàlla bokk na ci album bi Awa Emmanuel euh, moom aussi bokk na ci album bi donc nga gis ku mel ni tey arrangeur bi ñu naan ko alias nga xamante ni tey. Euh, arrangé na ñoom Cheikh Khaled ay ndaanaan yoo xamante ni tey sur le plan international dañu confirmer def ay disque d'or donc kooku moo arrangé sama musique nga xamante ni lu fali woy fali Ipupa lu mu woy alias moo ko def musique bi wala mu def mix bi donc kooku ndaanaan la nga jël tey beneen big maker bu mel ni Christopher un congolais congolais boo xamante ni aussi il est pétri de talent donc def na ay Naza ay Keblak xam nga donc artistes yu mag yoo xamante ni tey sur le plan international wane nañ seen preuve donc man ñooñu laal liggéeyal ci album bi e que je pense que bu loolu génne vraiment euh, ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni sax c'est des surprises yoo xam ne way naa ko euh, dinañ ko gis. am na benn boy aussi boo xam ne actuellement France mi ngi jóg bu baax mi ngi jóg grave ñu ngi ko naan Moms c'est un sénégalais euh, di def afro trap mais kooku li ci gën a neex mooy. daf ma yàgg bëgg bi mu nekkee xale donc moom su boobu nañ ko na ko yi bàyyi xel euh, mi ngi ñëw am na lu nu def donc Sorale booy waa Sorale di ay xale sénégalais ay surtout du Ndiaye Combarose ñoom it di ay artistes yu nekk France di def liggéey bu am solo xale yooyu aussi bon may naa leen chance. woyandoo ak ñoom ñu def aussi morceau boo xam ne je pense que ni morceau boobu ñu ma def ak ñoom son boobu amul son bu ko dàq ci album bi vraiment macha allah. so loolu yan projet la sénégalais yi mën xaarandi si Pape Diouf. mais bari na parce que sànq ci conférence de presse bi je pense que Dakar Buzz ñu ngi fa woon déroulé déroulé nañ leen suñu calendrier ba septembre 2020 on est booké donc on a 76 dates à faire avec Universal fii aussi on a beaucoup de dates à faire war nañu dem Maroc. le mois de septembre 2020 war nañu entamer suñu tournée américaine suñu grand bége bi nga xamante ni kale nañu date bi ba pare dinañ ko def le 4 avril suñu jour indépendance et li tax ñu bëgg ko def moment boobu dañu bëgg album bi génn artistes internationaux yi nga xamante ni invité nañ leen ci album bi ñu mën a ñëw ñu invité leen parce que le 4 avril vraiment dañu bëgg Sénégal Dakar vraiment nekk en fête ndax lo bés boobu mooy sunu bésu indépendance di remercier aussi suma grand yi nga xam ne euh, ñi ngi nekk su suñu ginnaaw di ñu jàppale di ñu ñaanal di ñu assister donc mënuma lim su ma limee rek damay juum mais ñoom ñëpp ñu ngi leen di remercier di leen ñaanal di leen gërëm di leen sant. su album bi question bi balaa ma laa ba sama question nag internet Dakar Buzz koy laajte Pape Diouf lay takk ñaareel. <laughs> man du ma mës a takk ñaareel. man benn galant madame tëj na caabi ji sànni ko. <laughs>